xam naa day jàll ci laaj rek koo xam ni dafa bëgg am ay këyit sëñ Moustapha ndax dafa mel ni bari na ñoo xam si ne day bëgg a tukki wala yu demee noonu waaye ay këyit daal leen di jafe lool lool lool te ñu dégg nag wax dëgg yàlla moom ku ci yàlla suñu borom la muy wàllum këyit. moom moom dama ciy joxe délai ba bokk ci yi nga xam ne mm-hmm. dama ci dama la ciy jox délai mm-hmm. këyit. waaw dafa bokk ci yi nga xam ne dama naan la mm-hmm. nangami fan. demal nga demal nga jëli say këyit. boo ko déposé gul it dama nga déposé ko dina la jox kayit moom engagement bi ma ciy jël moom dama ko ñeme te képp ku ma jëfandil ci kayit nga dem li ma la wax gisoo ko ma delloo sa xaalis te yaakaaruma ko it fii comme ku aajam na tafajul du fi du xam ba fiy ñëw wala su ma woowee du ma jot wala su ma jotee duñ juboo ci kàddu fii ku aajam na faju rek moo fi ñëw. Euh, gisoon yu ma dégg. ñoo xam si ne ñëw nañ ci yow waaye loolu lañ seede danoo seede ni wax dëgg yàlla bañ jëflanteeg yow seen xol sedd na kon lool moom li nga wax ni kon mu mel ne sëñ Moustapha xam naa am na loo xam si ne moom bëgg nañ la ko laaj muy wàllum noob ñu la laaj ba xam yan yow yan xeetu noob nga yor ndax dafa mel ni bari na ñoo xam si ne da leen di dal wala bari na ñoo xam si ne day koy jël di ko teg nit. ay noob noob day <laughs> noob day ndeysaan maam nit ñi day. ñaare bëri na ñu naan mën nañ ko waaye nopp bu de waaw man day faatixa xam naa ci trois cent soixante quinze façon ci yoo xam ne yoon yoo xam ne mën naa cee nopp nit kese ñëwaguma sax ci yeneen yi waaye jëmi faatixa kese xam naa ci trois cent soixante quinze yoon yoo xam ne mën naa caa jaar nopp nit ki nopp yi ma yor moom mm-hmm. ñetti fan mooy li gën a bari. su dee da woo nit. maanaam bëgg kaa wax sa soxla mu mu mu mel ne ku la ku la génnee ci xelam rek. ñëwal hmm? ma defar la loo xam ne ñetti fan soo ko woowee mu jël la. loo ko wax it mu ne waaw. foofu laa ci yem fii ñu fi ñëw moom xam nañ li ci nopp moom fii. macha allah ah, macha allah macha allah jërëjëf sëñ Moustapha mu mel ne sax wax dëgg yàlla am na ñoo xam si ne euh, seede yooyu indi nañ ko te man dégg dégg naa ko ñoo xam si ne ñëw nañ fi jaar nañ fi wax dëgg yàlla gis nañ liñ jëflanteeg yow ñëpp euh, seede yi benn la mooy li nga xam si ne moom mu nga leen defal wax dëgg yàlla seen xol sedd na si. kon xam naa sëñ Moustapha day ñëwaat ci beneen beneen beneen question rek muy ndax euh, ndax kaaraange bi nga yor yow ndax maanaam sunguf la soo xam si ne ko jox nit ñi wala. galaaj la goo xam ne muy ay ndombaak yooyu noonu nit ñi day koy takk yow ban nga ci yor. man sama kaaraange am na ndomba. Mhm. dees koy sangoo. Mhm. dees dees maam dees koy def ci jaaro jaaro. Ah. fi ne sama jaaro bii. li mu man mën naa ci limal tuuti. Mhm. fi jaaro. ku ma ko dàq ci réew mi gisuma ko. waaw jaaro yi ma yor man. ko dàq ci réew mii gisuma ko. ku ne nee fa sa jaaro nag. commentaire ma ci mais sama jaaro man. wóoru naa ko de. ah waaw ku takk sama jaaro wërsëg dina la yomb ba jaaxal la di nga nangoo gauche droite ku la daawul jox dina la jox mu neex ko ak mu naqari ko am na koo xam tamit am na koo xam tamit boo gisee ñu may def takk di liggéey lu ñuy sangoo di liggéey it li ñuy naan am na koo xam sawarul ci takk am na koo xam sawarul ci sangu am na koo xam sawarul ci naan te nag nit ki boo ñëwee ne mën naa nangam waa da nga fiy nekkal ñëpp nag. waaw da ngay sóoraale ñëpp. Mhm. da ngay sóoraale kii waaxu ak kii raam. Mhm. ki mën a dox ak ki mënut a dox ñëpp ngay sóoraale. moo tax nag mhm. bu nit ki ñëwee. lépp lu ma koy defal mu koy sangoo rek na yëg ni mën naa ko defal mu koy dakk hmm? te sama jaar yi li ma ci dëxëñ moom. kenn mënu ko wax. fi ne ku liggéey jàpp soo ko takkee mu dañ. waa takk dugg sa baaraam bi képp a tax mu dañ tee mu dañ. waaw liggéey ku mu jàpp mu dugg sa baaraam moo tee mu dañ te kenn du la liggéey it ba jàpp la. waaw. Ah, nga takk sama jaaro bii. Eh? maanaam di nga saf ñëpp. Eh? ba mu jaaxal la baas boo dem dañ lay lijjanti bu la neexee bu lijjanti kenn. foo dem diw diw ji dana la sonal. Eh? waaw wërsëg yi dana la yomb. li naan loxo bën da koy saafara. Ah, mu ngi sa loxo bii. Mm-hmm. million boo yor di nga xam foo koy dugal am na ko xam ne mun a denc dara. Mm. maanaam dajal dara mënu ko dajale lu mu am danaan mes. Mm. kon ki nga xam ne tey liggéey da koo sonal. Mm-hmm. man maay xool wan yoon laa koy jaarale bu ko neexee mu ñëw ma jëflante moom ci lu ñuy sangoo ñetti fan. ndax man samay samay samay samay samay délai li ci ëpp ñetti fan la. Ah, waaw ndax man li ma lay jox dalul dalul dalul dalul dalul nekk loo xam ne dalay sonn man ñetti fan mooy sama délai loolu lu ma liggéey la ba su borom may ma ko. boo gisee ñu may wooyee borom sañ-sañ. Ah, man lu kenn mënut a def man moom laay def. Ah. fi ne man ci ki ki ma gën a gën a sawar. Mm. mooy ko xam ne dafa wër a wër ba ba dajal. saafara munu ko am fenn bu ñëwee ma saafara ko. lu mu mën a doon nag lu ko mën a jàpp. Mm-hmm. jaaxle na wër na fu mu mën a doon fu mu dem na fu ne mënut a saafara bu ñëwee ma saafara ko. loolu moom lu ma jëflante ay nit ñi la ay nit la. Mm. ba nit ñi dama ko woowee. Mm. ndax engagement boobu dama ko jël te dama dama ay résultats. Mm, waaye nag lu ma liggéey la nag sama diggante sama borom ba yàlla may ma ko. Mm-hmm. tur bi ma yor lu ma ci lu ma ci sàkku yàlla defal ma ko. Mm-hmm. waaw xam naa feneen ma xam ñëpp uh-huh. xam ñëpp it nañ ma kurus. kurus waaw ku ko ñeme laa ku ma ñemee jaamu yàlla la waaye kurus moom day sama waay ndax dama am lu ma ca yor loo xam ne lu lu nar rek moom moom laay woo musaafarawul léegi moo la samay dal li si ëpp ñetti fan kesel mm. waaw macha allah macha allah jërëjëf sëñ Moussa kon yéen a ko dégg noonu noonu macha allah dalem bi gën a kii mooy ñetti fan wala gën gaa bari la xam si moo gën a bari mooy juróomi fan kon macha allah kon loolu kenn ku nekk xam ne yàggul kon ah, fi ñuy ñëwaat rek sëñ Moussa mooy ci wàllum néew kàttan ndax dafa mel mel ni di ko seetlu si jamono ji moo mu mel ni bari na ñoo xam si di leen di dal waaye ñu bëgg ci ay saafara waaye ngir ñu am saafara bu wér ngir ñu am ko rek da di jafe yow sëñ Moustapha nan nga def ak loolu. dama koy faj. waaw fi ne nii lu jëm ci médecine traditionnelle. Mm-hmm. lu dul ki néew kattan. Mm-hmm. am mojoram di ko faj maanaam dama ko jàng nag ba maîtriser ko nag léegi dama koy jàng ba maîtriser ko. Mm-hmm. xam nañuy fajee hémorroïde ni ñuy faje estomac ni ñuy fajee ulcère ni ñuy fajee jabet lépp xam naa nu ñu koy fajee. ak façon boo ci man a yor it mën naa ko saafara waaye jot jotub maanaam di boole ñaar yi may def. Mm. muy asraar bi mm. ak di boole maanaam jaamu yàlla gi. Mm. ak li ma war a tudd sama kurus gi lépp ma war kaa boole. ak di faj doomu aadama ñu may rang fii sama kër daanaka boo fi ñëwee ah damay man sax maa maa bëgg nit ñi di fi parce que man loolu neexuma waaw damay bëgg du fekkante waaye su ma ko bëggee woon noonu mm-hmm. bu ma neexee nit ñi di fi fekkante waaye bëggee wu ma ko noonu man bëgguma tout le temps rek ma nekk ci nit ñi damay bëgg it loolu moo tax so choisir ma di def di def euh, médecine traditionnelle comme ku mu dal lu dul tële uh-huh. koo xam ne néew kattan da koo dal ah, ku mu dal uh-huh. ñëwal ma saafara ko hmm? duma la duma la calmer dama lay saafara uh, loolu kon leeral nañ kon nag gaa yi mi ngi noonu Euh, loolu moom dafa mel ni bari na ci jamono ji lool te bari na ñu koy jàmbat kon képp koo xam si ne euh, bëgg naa jokkook sëriñ Serigne Moustapha Sy rek borom sañ-sañ nekk fii ci Technopole euh, na ngay jokkoo moom ci 77 666 70 85 wala nga jokkoo moom ci 76 608 36 86 xam naa Serigne Moustapha fi ñu ñëwaat rek mooy ci soxna yi soxna soo xam si ne maam dafa toog borom kër tëkku lool lool lool lool nan lay def Serigne Moustapha. nañoo gisee man rek. Mm-hmm. pour ñu bañ ca jël temps hmm. nañoo gisee ak man ma lijjantil ko. Hmm. macha allah kon kon kon kon soxna kon yéen a ngi dégg dégg noonu waaw macha allah. maam ku ku ah. gis gisee man rek. Ah. ma saafara ko waaw moom loolu moom daa bokk ci yi ma gën a yi ma gën a man moom. Ah. waaw nañoo rek ma saafara ko moom loolu moom rak tak jooni jooni ma lijjanti ko. waaw jooni jooni yooyu moom fii nit ñi duñ fi jóg ci loolu. Eh, macha kon kon kon soxna yi kon yéen a ngi ko dégg noonu macha allah euh, wàllum bayra bayre Euh, sëñ Moustapha wàllum bayre képp koo xam si dafa bëgg bayre sëñ Moustapha uh-huh. bayre ay façon la mm. am na bayre boo xam ne yow lay topp yow mm. am na bayre boo xam ne place bi nga nekk lay topp mm. fi ne maa ngi bayre boo xam ne képp koo xam ne day commerce moo xam ne day jaay ak lu mën a doon boo ko defee moo la koo defalee ba nga def ko ci jëfandikoo ko sa place 300 mm-hmm. mètres mm-hmm. yaa ngi dégg de mm-hmm. koo dendal 300 mètres moo xam sa kanam la moo xam sa ndeyjoor la moo xam sa càmmoñ la yaa ngi dégg de. Mm-hmm. lu mu naroon jaay da ngeen bokk yaa koy jaay yow. Mm-hmm. balaa kenn jeexal nga jeexal. yenn saa nga gis koo xam ne place am dañ koy rax rek te yow ngay jaay la muy jaay te noo am mu mënoo jarle. <laughs> loolu bayre la. boo demee marché Colobane gii ak Sandaga. bari na ñoo xam ne sama bayre lañ yore bayreem ñaar yi ma ci yor yu yéeme la ñoo xam dañ leen rang te maa fa jaar. yooyu moom. Mm-hmm. maanaam yàlla dama ma cee may. waaw bayre yu yéeme laa ci yor place bu dee jëmmi nit nag. moom maa maam xorom laa maanaam day mel ni cin luñ sotti xorom ak jumbo ak laaj ak yooyu rek ni muy safee. Mhm. dama lay xorom ba nga saf maanaam bayre bu bu yéeme nga yor. foo dem nit ñi di la di la coow te man sama bayre day ànd ak kaaraange. Ah, waaw du jox bayre noonu rek nga dem ca topp la déedéet. Mhm. bari na ñu faatu ñoo xam ne bayre bu bëree leen sonal. Mhm. yaa ngi dégg. man sama lépp lu ma lay jox day ànd ak kaaraange. rawatina bayre boo gisee sama jaaro bi sax dama ci liggéey loo xam ne kaaraange da cee am fi ne bu duggee sa loxo bi lu mu fekk sa liggéey da koy dindi te liggéey dootu la jàppati man lu may ma ci sóoraale kaaraange parce que kaaraange dafa dafa jafe jamono ji waaw li yàqal doomu dafa bari bu ko cat jugee na le jinne yi na le ah, lu ne jugee na le ñëw daal daal ci sa kaw amoo kaaraange làmmiñ ñu topp la ah nga naan man dama am bayre fekk yaa ngi dajale cat boo xam ne bu naan buy explosé ngay ngay faatu fa yàllaahu